léegi dafa am benn ismu bu ma wax léegi mooy ismu zaat mhm. te mooy allahu mhm. xam naa ni 66 la moom mhm. ak lu mu gàtt gàtt wala ismu zaat boobu lu ngeen ci lu lu lan mooy fekk lan mooy secret bi waaw dafa dafa yéeme ndax fi ne maanaam mooy jëmm maanaam jëmm ji tur wi nga xamante ni tey jii ki ki ki ki tuddee boppam exemple ki tuddee euh, boppam euh, euh, Mansour ñu naan ko maas wala nangam xam nga maas bi moom fi ne bu buñ ko doon woo tribunal du ñu woo maas tur ba rek la ñuy jaar boo ci wax officiel bi léegi nag tur officiel boobu noonu mooy allahu mooy mooy bi nga xamante ni yàlla moom boo ko ci wuyoo woowee moo wuyu la léegi nag allahu dafa bari yoo xamante ni ay allahu la hmm. waaye néew na luñ koy dégg lu mel ni ay jël-jëlu ay taka bi taka jaka biibu ay bakk madu yooyu yëpp boo ci calculer rek 66 la allahu la hmm. ay xëyaanu ay yooyu yëpp ay allahu la léegi nag allahu mu doon loo xam ni képp koo xam ni bañ ngaa bëgg ngaa dund ci àdduna ba jóge àdduna doo am benn jafe-jafe maanaam waxuma ko nii ngir dama koo jàng ci ay téere waaye lu ma lu ma tarbiyewu la ba gis ci njariñ mhm. ma ma door ko ma door koy wax léegi boo jëlee 66 nga multiplier ko par 66 mhm. mooy jàpp allahu multiplié par allahu mhm. da lay jox waniltu 4356 léegi 4356 nga yokk ci juróom-ñaari Muhammadu Muhammad mooy 92. Mhm. nga multiplier 92 multiplier par 7 mooy jàpp ahamun saxakun xalaxun yesun di 644. Mhm. mooy jàpp Allahu karimu razaa. Mhm. mooy jàpp bismillahi kun fayakun yooyu yëpp ay 644 la. léegi 644 boobu boo ko boolee 4356 day nekk 5000 juróomi junni. léegi nag juróomi junni yi képp ku yàlla dimbali nga di ko liggéey guddi gu jot. nga xamanteni bo defé sa ñaari rak jëlal sar yu la neex nga jullee bo noppé nga def astaghfirullah al azim 66 après nga def astaghfirullah ghafurur rahim 66 def astaghfirullah al azim lazi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum 66 di def ya allah ya allah ya allah ya allah 5000 bo noppé nga tëjee ko allahumma salli ala sayyidina muhammad nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa khayr qadimihi wa ummatihi wa sallim 92 nga saxal ko maanaam benn jafe-jafe adduna moom dootoo ko am boo ci dëkkee boo ci dëkkee maanaam amul benn benn benn jafe-jafe adduna booy am damay profité rek wax ni lépp lu ma joxe ci télé ak lu mu mën a doon lu mën a génn la lu ñëpp mën a am mhm. loo loo maye la waaw loo xamante ne ñëpp mën nañ koo am kenn ku ci nekk war nga koo mën a am di ko liggéeyal sa bopp li war warta génn du génn liñ la war a déey mën nañ la koo déey mhm. maanaam ci turu yàlla mhm. nga xamante ne nii nag allaahu noonu noonu la léegi boo xoolee allaahu

الذي هو سناديس رحمانية ومفتاح الأقفال الأحدية الإلهية وسمس المشاهدة الحقائق الفردانية وكوكب اللوامه الأنوار الربانية وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم فين لولو ما وخنون صلاة بوب 6666 لي جاب moo jàpp xaddaku xëy ni حي تصحز xayu فقر فقر فقر فقر فقر سيسون faqara faqara siisun mhm. nga xamante kalsam boobu tamit 6666 66 léegi nag allahu li mu mën dafa bari mhm. allahu fi ne mën nga cee dugg xalwa mhm. xalwa bi mooy bi ngay def deux cent trente six muy kun fayakun nga multiplier ko ci ci ci ci ci ci ci ci allahu mu jox la quinze mille cinq cent soixante nit ki nga xamante ne nii dafa dafa am aajo ju ko jaaxal bu ko neexee mën na jël quinze mille cinq cent soixante seize ci allah yaa allah yaa allah mhm. di ko liggéey bis bu jot ba mu mat juróom-ñaari fan du lekk lu am ruu du lekk yàpp du lekk jën du naan meew du lekk beurre lépp lu am ruu rek du ko laal bu juróom-ñaari fan yi matee aajo ju mu mën a doon suñu borom dina ko fañal allahu liñ ci mën a wax dafa bari mhm. ki nga xamante ne nii même dafa am jafe am am doom fi ne bu dee jël allahu boobu di ko di ko di ko di ko di ko sikkar 66 di ko ëf ci ndox di ko naan moom moom ku jigéen ki ak ku góor gi sunu borom dana leen dana leen may dana leen may doom mhm. nga xamante ni yooyu yëpp alquran ak turu yayi ak yalla yi mhm. yalla moom mom turam yu selli mhm. neena sama tur yu sell yi gian ma ci ngeen ma ci ñaan ma di len may mhm. kon nak nit ki lu mu meuna doon ci adun waro xalaat ni kenn mu meuna fajj sa aajo ku dul yàlla yalla mom moy fajj aajo yi bo bo gor gor lo ci selal sa jëm xol bu baax li ngay lekk xol bu baax li ngay xol ndax jëmm yëpp maanaam cër boo gis ci doomu aadama rek am na lu muy rafetale am na lu muy bàyyi. Hmm. am na bu maanaam bu fekkee bët yaa ngi ciy xool lu araam xool googu ngay xool lu araam day am lu muy toqal ci sa biir xol. Hmm. léegi nag li muy toqal ci sa biir xol yooyu mooy wanal jeexital yi nga xamante ne ni moom la jàmm bi di def. Hmm. waaye ki nga xamante ne ni sellu na jublu boromam. lépp lu mu ñaan yàlla rek suñu borom mën na ko teem mën mën na ko may mbokk yi ba léegi rek ñu ngi toog ak Mouhamad Mouhamadou Moustapha Samb di euh, soldaaru Serigne Touba